saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa tafaatin may cokkaas lak dëgër de gannaaw ba ñu waxee ne bi les revanche combat bu raisonnable la tafaatin toogatut taxawatut moom la géant yi bawol dafa bëgg kut ko kut lak dëgër de jël bi les avance ban promoteur moo koy tëgg kan moo koy joxe kenn xamagul en tout cas tafaatin xëy na moom bay lijjanti combat na mu koy lijjantee mooy di cokkaas lak dëgër ba ba muy jël avance moo waral mu xëy ci sunu làmb taxawee ñun ñaar danaa ba mu xam danaa xeex ak mbokkam jël si ko bu ñu jàkkaarloowee lak dëgër du ma naa te lu ma may ma jël rax ca dolli ne l'heure de la revanche a sonné sama revanche ak Lac de Guiers jot na sëkk bii les nag am na ñaari promoteur yu koy dox ñaari promoteur muy sunu papa Gaston Mbengue ak Pape Thialis Faye ñépp a bëgg bile combat loolee moo waral moom Tapha Tine muy déclarer guerre Lac de Guiers rax ca dolli ne du sori ci ay mbiram ndax combat bi taxawagul bu combat bi taxawee danaa ko yekk la ma ko bëgg yekk jouru combat ba ma def ko li ma guerre pour revanche ba muy dundee yaakaar léegi Lac ak Tapha Tine wax moom ca pàccoli la mu bëggoon mooy bëre ak Lac leeral mbir moomee waaye la mujjee xew ca ginnaawam mooy Lac ak Tapha Tine bu taxawee Boy Niang lay bëreel gannaaw Balla am na Gris Bordeaux fekk na Boy Niang bëggoon Balla bëggoon Gris Bordeaux Lac mi nekkoon sanitation Tapha Tine a koy karkaral ana kan la Boy Niang 2 foofee la coow

Amar Diop moom Boy Diop anti bu ndakaaru moo ko daan keroog boobee ba léegi génnaatagul Ama Events taxawal bile combat mu nekk seen deuxième sortie Ama Events taxawal seen combat ki la jóge ci défaite kii jóge ci victoire ana kan mooy freiné Mama Lamine liet naam si ta loolee la journal ba di laaj ki fi defaloon bagage jokkel defal fi bagage buur siin ana moo koy freiné le journal ba xam ca moom mooy technicien la tacticien la xale bu am fulla la mën lijjanti le journal sunu lamb di lijjanti kay mooy ndax Papa Gaston day yem ci yile combat wala déet le sauveur des VIP sax la ko tuddee ki taxawal combat Balla Gaye de Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Bombardier est sunu Papa Gaston ci yile combat rek lay yem kenn xamagul la am ba des mooy Gaston mu ngay defi démarche te kenn gënu ko maîtriser lamb ji fa muy jaar ba taxawal yeneeni combat VIP moom xam na ko ndax Gaston day raafle léppam déet loolee la a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox